da ngaa jëndoon jëmm yéene ca jaayaat laata nga koy jaayaat nag tàmbali ca am xaat xaalis mbaa wurus loolu la ne moom da nga koy datee ci bis ba nga jotee loolee ba mu del si déwén sa duñ ko yemaleeg bénéfice xam nga boo jaayoon jëmm ci moom am lu dolliku ci njëg nga ko jënde woon loolu moo tudd bénéfice moom danaa fekki ndey ja fii nag moom du fekki ndey ja lépp loo jënd jublu koo jaayaat laata muy jar nga di ci am nag dara ci wuru sa xaalis loolee da nga koy jëmale rek déwén du tax mu topp ndey ja ci at waxtu nga jote rek ngay seet ba mu dellusi ca déwén sa mu ngi ndey ja duñ bokk atum asakaal misaal mu gàtt te leer te yomb rek nga jëndoon kër ngir jaayaat ko mu yéex a jar nag nga di ko luye weer wu ne ñu fay la ca nangam xam nga kon kër ga jërëgut te tàmbali naa andi xaalis loolee ngay am ci luyaas ba du topp la nga jënde woon kër ga ci booy date atum asakaam nga seet rek waxtu wa nga jotee payuk luyaas ba boo ko yoree ba mu ñëwaat ci déwén sa nag te mat nisaab asaka war ca dafa leeral nag ne bu doon sax ay garab nga jënd ngir jaayaat leen far ñu meññ doonte sax ba nga leen di jënd nga fekk mu am meññet mu ñu góoral góoral daa am nañu koy defee bu dee ci tàndarma dañuy jël ca tóortóor yi gu góor ga def ca gu jigéen ga ndax bañ tàndarma ja ruus bu dee góoral ci leneen nag mooy loola meññ na ba meññet ma génn fés boo ne jàkk rek jàkkaarloog moom loolu moo di góoral ci leneen lu bokkut ak tàndarma mu ne nag boo jëndoon i garab ngir jaayaat far ca am meññet mu toll noonu itam su meññet ma jaree ndax ñu ne la day topp njëg nga jënde woon garab ya ci datub asakaal duñ jotee dara boo jaayee meññet ma njëg te boo takk dat ba nga ko jaayee bu dee see déwén sa rek asaka door la caa war da cee génne nag yaar soo jëndoon ay gàtt bëgg leen a jaayaat fekk ca nag kawar gu bari goo xam ne mënees na ko daldi wat jaay wala nga jënd ay garab fekk ca meññet moo xam ne ñor na ba noppi na war a ñore nga fekk ca meññet mu ñor na war a ñore yemawut ak meññet mu ñu góoral yooyu yaar moom dañuy topp cosaan la maanaam xar ya boo jaayee kawar googee ba tey njëgg duñu wax ne da nga koy téye ba dat ba ñëwaat ci déwén sa dañuy seet njëgg nga jënde woon xar ya xam ne ca la at ma tàmbale woon mook njëgu kawaru xar yooyee ñooy bokk datub asakaal bu dee garab yi itam soo jaayee meññet moomee duñu wax ne dangay seet dat bi nga jaayee meññet mi ba mu ñëwaat ci déwén sa dañuy wax cosaanul ndey ja la ñuy seet mooy njëgg nga jënde woon garab ya nga xam ne atam la ñuy seet ba tey meññet mi nga jaay it moom lay topp rek lépp rek ñooy bokk waxtu asakaal boo weesoo nag yooyu yaar lépp loo jëndoon ngir jaayaat laata muy jar nga tàmbali ca am xaat xaalis mbaa wurus loolee nga ci amee ngay jàpp dat ba ba mu ñëwaat ci déwén sa waaye doo seet cosaanal ndey ja wastaqbala jubale na at man ka nga xam ne xataxa gore na aw aslama wala mu tuub min yow mi isin tàmbalee ci bis boobee jaam bu goree sayo ba mu takk dat ba mu goree ndax bu desee ci déwén sa moom ko fekkeel te asaka war ca mu génne ca asaka ndax moom ba mu nekkee ci njaam nga asaka ba ko wóorutoon ndax dañ ko moom moom la mu am lépp ba tey ku nekkutoon ci lislaam gannaaw ba mu dugg ci lislaam na date bis ba mu duggee ci lislaam bu dee see ci déwén sa lépp lu mu ko fekkeel te asaka war ca mu war caa génne asaka ñu seetlu ne wa man tasaxin min raqiqin jamono jaam amee ba jekkee jekki nangu alali jaamam da ko boole ci ya nga xamee ne am am boos la boo xam ne bàyyi koowul ci alal te boo ko dee seet jaam bam bàyyi ko daa fekk muy alalam waaye rek du ko tey doon moom xarxat ndax xarxat dañu ne mu waroo jekki-jekki am bàyyi ko wul ci jenn alal wala mu bàyyi ko ci alal joo xam ne asaka waru ca te jaam bokk na ci yi nga xam ne asaka waru ca ba tey ñu seetlu foofu ne mbay ni ki dugub ak xeeti mbay yi loo ci xës génne asaka benn yoon jeex na bu fekkee jëmm ji dafa nekk ay ati at at mu ne la ca des mat nisaa bi tam lu tax nga da ca génnewaat asaka mooy teg nag wurus ak xaalis ak jur xar bay nag gëléem yooyu ñoom li fekk mi ngi mat nisaab rek at mu ne asaka war ca nga xam ne su fekkoon ne lim booba yokkuwul dara dara ci at yooyu yëpp waaye teewul rek lim baa ngay mat nisaab itam du tee rek asaka war ca ndegam da nga koo denc rek noonee denc boo xam ne saa yoo ci bëggee dem dem ca moo tax ñu naa alali jirim dañ ko war a dugal foo xam ne dana di yokku ndax bu dul loolu at mu ne ñu génne ci asaka te kon mën naa am balaa jirim baa mën a jëriñoo alal ja far alal ja jeex loolu rek kaa def na asakaal at daynu bor li sanatin ñeel men at doon mi malaka tàmbalee ci bis ba moomee aslahoo cosaanam aw zakkaahu wala ba mu ko gëjee asakaal in kaana ndem nekk na ay nan di kee maanaam di wurus mbaa xaalis min xardin ci abal ngir yàlla aw xorodi tijaaratin wala marchandise yi yaxantu maanaam marchandise yi jaay ngir bëgg bénéfice wa qubida te ngëbeef ko ay nan mbir mu muy kee waaw mawhuban ak doonte day lu ñu maye aw axaala wala mu wëlbatee ko wa kamula te mu mat nisaaban mbir mu muy nisaab wa in bi faidatin ak doonte ci xarxat la tamma jot mat na xawluha atam ma aw kamula wala mu mate bi macdunin ci mbell tey wax nag bor kañ la ci asakay war bor day bala ca asaka war am na ñeenti sart dana tudd ñeenti sart yi mënees naa wax ne alal joo jékki-jékki am ni ki donn ko mbaa ñu may la ko mbaa boog mu jegoon ñu jox ko ko can wala muy góor ñu faye ko ko ci sëy bu muy tàggoog soxnaam wala mu amoon loo xam ne asaka waru ca mu ko daa jariñoo ba yàgg mu jaay ko yooyu yëpp su fekkee ne jotu jëf fa saasa ki bu dee lu ñu doon ngóor ga da caa teg loxo mënaguñ caa jot wala bu dee luñ ko may may nañ ko ko waaye jotagu ca wala bu dee alal juñ koy fayee cib sëy ba tey jotagu ca lu yàgg-yàgg doonte ay ati at la asaka du ko ca war ba bam cay jot gannaaw bu ci jotee nag ba dat ba dil si ci déwén sa asaka doo ko caa war ba tey it ab la ngir yàlla rek ni kii mu abal mbokkum taalibeem nangam ci xaalis du ko ca tegal dara da ko ko abal rek ngir yàlla loolu yàgg-yàgg ca loxoy kooka asaka du ko ci war saa yu ci jotee itam doonte aati at la da koy génneel asaka benn yoon rek du tax ñoom ñi na at ya tolloo mu génneel at mu ne ndax moom dafa am woon rek ngir yàlla bis buñ ko fayee nag alal ja na seet alal joojee ba mu ko amee danga war caa génne asaka boobaa léegi ndax mat na atam déet wala bu fekkee matoon na at ba mu génne woon ci asaka mu seet ba mu ko mujjee asakaal ak léegi bu wata lay tàmbalee at ma xam ne suñ ko fayee rek te diggante bu mat at ba mu ko fayoon na daal di génne asaka ja mel ne boo amoon xaalis boo xam ne yore nga ko juróom benn weer doo ko abal sa mbokkum jullit moo tax mu yore ko juróom benn weer daal la koy delloo kon xam nga amal nga ko yore ko juróom benn weer bi la koy delloo itam ci gannaaw bi nga ko ablee juróom benn weer loolu at mu mat sëkk la kon boo ci jot fi saasa rek daal di war a génne asaka ja su fekkee itam xaalis boobee da nga ko yore woon lu mat at ba génne ci asaka doo ko abal nag sa mbokkum taalibe boo ko delloo da ngay seet ba xam ba nga ko mujjee asakaal ak léegi at ma mat naam déet su at ma matee rek nga war caa génne asaka su fekkee mat boo ko delloo nag te ba nga ko mujjee asakaal léegi matul at nga bàyyi ba at ma mat lu war a jëm ci teqale ñeent sart yi nga xam ne mooy tax bor bañ la ameel asaka war la ca ba ci jëkk ba ci jëkk mooy loolee nga leble doonoon wurus mbaa xaalis wala marchandise moo xam ne danga koo jëndoon ngir jaayaat ko am ci bénéfice bu fekkoon ne loolee nga leble du wurus du xaalis te it du woon loo xam da nga ko jëndoon ngir jaayaat sa kër gi nga xam ne moom nga dëkke boo ko jaayoon ci million te juboo kooka ci bu at mi deexee la lay fay mbaa bu fi amee ñaari at mbaa ñett la lay fay ko it bis boo fayoo njëg googee du tax asaka war ca faaw nga takk dat ba nga fayoo ba mu ñëwaat ca déwén sa bu la fekkee loola nag mbaa la ca des mat nisaab asaka door la caa war nga seetlu foofu ne bu fekkee fayandoowu la lépp lépp benn yoon it lam la ca fay say boo takk dat ba mu la ko fayee bu dee siwaatee ca déwén sa ca weer woowee te mat nisaab mbaa mu ëpp ko nga génn ca asaka bu fekkee lam la ca fay matul nisaab ba daat ba dellu si itam du tax asaka di ca war faaw rek nga dem ba fay lu mat nisaab asaka door caa war kon yaa ngi ci sart bu jëkk bi te mooy la nga leble doonoon wurus mbaa xaalis mbaa mu doon marchandise moo xam ne nga ko jëndoon ngir jaayaat ko am ca bénéfice mais ne sa mbokkum jullit ñëw leb la nga lebal ko juróom benn fukki junni kooku jëndi xaalis nga leble wala boog da nga jaay am ku dikk nga lebal ko ca marchandise ma nangam mu jëm dele nga xam ne dele sàngam ci la la war a fay boobu demee noonu bu ca boolee sart ya ngay bëgg a wax asaka dana ca war daañu wax it moom cay génnee asaka waaye nga teel a jàpp foofu ne bu dee ci wàllu asakaal commerçant yi dañ leen di def ñaari xaaj ki nga xamee ne moom lam yor da koy jaay rek ci njëg ga nga xam ne moo xew mel ne li ëpp ci borom boutique yi ak ñi topp marché yi ak ambulant yi loolu mooy benn xeetu commerçant yi bi ci des nag mooy ñi nga xam dañuy jënd loolu di ko néegee nag mu dem ba ñëw ñu mën koo jaayee njëg gu bare bari mel na ñuy jënd léegi dugub di ko xaaree nag ñu demaati dem ba nga xamee ne dugub mu ngi bëgg a ñoraat su boobaa nag kiloob dugub dem bay bëgg a dab kiloob ceeb ñu door a jaay ku jëkk ki moom la ñu wax mu diir la muy def moo tudd idaara ku ñaareel ki moo tudd muxtakir ñu koy wax aji dakkar ci la muy def moo tudd ixtikaar dakkar ci ñaari xeeti commerçant yooyu ñoo yem ci ku ci ab la ngir yàlla xaalis mbaa wurus nga xam ne tegoo ca dara da nga able rek ngir yàlla loolu ak yàgg li fekk jotoo ca asaka du ca war te boo ci jotee benn yoon rek nga ciy génne asaka fa ñu wutee nag mooy ci leble marchandise ma ñuy jaay ki nga xam ne moom day nekk ba loola néew mu jaayee ko lu bare bari ñu koy wax kay dakkar ci loolu leble ci marchandise ma bala ca asaka war ñu fay ko ko te fayee ko ko wurus mbaa xaalis bu ñu ko fayee woon marchandise bu tax asaka war ko ca te it loolee bu yeexee jar lool am ci loxoom ay ati at mbaa lam ca legle neex ko koo fay ba mat ay ati at itam du tee rek bu ci jotee too ko wurus mbaa xaalis asaka war ko ca benn yoon dong ki nga xam ne nag moom njëgg xew rek ca lay jaaye jëndaat teg kooku moom loolu leble ci marchandise bu àggee ci di war a génne asaka ba xayma marchandise ma nga xam ne moo teew ca boutique ba dana ci xayma waale la mu leble ci marchandise te fayaguñ ko ko sartu ñaareel bay tax mu war a génne asaka ci bor bañ ko ameel mooy ñu fay ko waaye foofu itam am na teqale bu dee ni jaaykat yi ëpp a jaayee nga xam ne njëgg xew rekk ci la ñuy jaayee jënd tegaat kuñ ci ameel bor bu la fayul itam bu la wóoree ne daa ak sigul waaye faaw mu ñëw fay si la kon booy génne asaka dangay xayma waale bor ba seet la ca war a génn ci asaka nga far ko génne waale bu doon nag kay dakkar ci maanaam kay jënd di xaar njëg gu bare bari kooku la ñuy wax ne moom li fekk fayuñu ko bor yañ ko ameel asaka du ko ca war te it buñ ko fayoon fay ko marchandise it li fekk muy jaay marchandise bañ ko fayee asaka du ko ca war marchandise bañ ko fayee su ko jaayee te bëgg xam ba xam at mi mat na wala matut da koy tàmbalee ci bañ ko fayee marchandise ba mu téye ko du ko tàmbalee ci ba mu amee lam jënde woon marchandise moomee mu leble woon nga xam ne kon foofu kiy jaay rekk ci njëgg xew du ca xaarante njëg gu bari dal na fay wuuteeg kay xaar loola néew ba mën a jar njëg gu bari jàppal ne ki nga xam ne moom day jaay rekk ci njëgg xew jënd tegaat suñ ko amee lee bor te wóor ko ne moom délai baa ñëwagul waaye faw koo ko fay si ko amu ca nattable da koy daal di xayma daal di génne asakaam ca ba muy génne asakay la teew su fekkoon na it bor ba bu ko kooku dee fay si marchandise la koy fay ni kii da koy joxoon xaalis bu gerte ñoree mu war koo andil nangam ci gerte mbaa bu dugub ñoree nangam ci dugub jotagul sax nag ca gerte ga mbaa dugub ja waaye wóor na ko ne kooka moom dana ko indi amu ca nattable bu dee asakaal di xayma la teew ca boutique ba day xayma waale loolee muy séentu ci gerte mbaa dugub guñ koy bëgg a indil kooku nga xam ne day jaay ci njëg nga xam ne moo xew rekk nu wax ne la mu leble te wóor ko ne jotugu ji waaye dat ba ak séglu waaye dana ci jot nattabliwu ko mën nañ koo misaale am ko muy joxeel bis bu ne nangam ci ceeb ci këram ak nangam ci diw wala weer wu ne nangam ci saabu mu wóor ko ne kooka moom jekku na fay ga te bu dat ba agsee lépp la koy fay moom nattabliwu ko loolu bu dee xayma di génne asaka na ko daal di xayma waale génne waale asaka ja benn yoon moom li takk di wax naa wal xaasilu anna gayral mudiri innama yuzakki ad dayna li sanatin min aslihi ida qabadahu aynan wa ama ida qabadahu xardan fala yuzakkihi xata yabiiha وحوله الذي يسكيه عنده من يوم قبض الحرض لا من حول أصله كالعين فإذا باع ذلك الحرض زكاه لسنة من يوم قبضه هذا إذا كان غير مدير كما هو الموضوع وأما إذا كان مديرا قومه كل عام وإن لم يقبضه حيث نض له ولو درهما كما يأتي sartu ñetteel ba mooy ba mu fayoo bor ba ñu fay ko ko muy wurus mbaa xaalis waaye suñ ko fayee bor ba tam doon marchandise nin ko doon leerale léegi day am teqale ci na muy jaaye bu dee kay dakkar ci maanaam di xaar ba loola néew te jafe mu jaaye ko njëg gu bari moom buñ ko fayee marchandise du tax asaka war ko ca booba muy jaayaat marchandise moomee nin ko leerale woon léegi waaye nag nga seetlu ne kiy jaay rekk ci njëg xew moom buñ ko amee lee marchandise fay ko marchandise kat du tee buy asakaal xaymawaale ko nin ko leerale woon léegi nga xam ne kon foofu ba tey nakee di jaaye ka jënde ak ka ca des dal nay am ak wuute bu ñu nee nag la mu leble bala ko ca asaka war mu fayu ko fayu ga mën naa doon bor bañ ko amee loon mu may ko kaneen ku bokkut ak ka ko amee loon wala mu jox ko addiya ab sëriñam mbaa kenn ñëw di ko fayu si bor mu ne ko diw dey ameel na ma buñ juboo ma yebal la ca moom moom mu fay la mu ne ko nangu naa mu daal di ko yebal ca kooga saa yoo xam ne bor ba ko Modou Diop ameeloon nee na Modou Ndiaye may naa la bor boobee su Modou Ndiaye demee Modou Diop jox ko bor ba rek dañuy jàpp ne moom mi nga xam ne moom lañ amee loon bor ba fayu na bor ba te it war naa seet na bor ba toll mu génne asaka ja waaye nag ci kaw ka mu may bor ba bokkut ak ka ko ko amee loon su fekkoon ne ka ko amee loon bor ba rek la may bor ba moom asaka du ko ca war wax dañuy jàpp ne da ko setal rek ca bor ba waaye loola du ko fayu li ñu wax kay mooy kam may bor ba ba mu nangu ko keneen lu ko bokkut ak ka ko ko amee loon ni kii Modou Diop moo ko amee loon fukki junni mu ne Modou Ndiaye nag may naa la fukki junni yooyu ma Modou Diop amee loon kon bu ca Modou Ndiaye jotee rek dañu jàpp ne moom fayu na na seet lay asakay fukki junni mu daal di koy génne joxe lu wax naa wa mafhumu qawlina li ghayril madini anna xibata dayni lil madini tusqitu azakata xalal waahibi li xadamil qabdi alxissiyi wal xukmiyi wa fi lxaqiqati huwa ibraun ba tey bu fekkoon ne dama la amee loon fukki junni nga ñëw di ma fayu si ma ne la te ma laa yebal ci góore jóob amel na ma fukki junni nga féeteeg moom mu fay la soo nangoo rek yi daal jàpp ni man fayu naa fukki junni yooyu nga xam ne moom la ma góore jóob amee loon ndax fayu si nga ma ma yebal la ne la demal góore jóob fayal ma la ndax amel na ma fukki junni kon man léegi war na maa daal di seet fukki junni yooyu nga xam ne góor a jóob ameloon na ma ko ma daal di génne asaka ja ndax ndegam fay naa ko bor rek day mel ni góor a jóob fay na ma ko ba noppi loolu mooy la ngay séen ci yax ba mu naa walaw mawhuuban am na yax bu ci boole lahoo walaw mawhuuban lahu aw axaala fra bi jàngoon léegi li mu ne tusxitu azakata xalal waahibi dafa mel ne xanil waahibi xan moo nekk foofu waaye du xalaa xëy na yax sartu ñetteel bi nga weesu léegi te mooy mu fayu bor ba ba jot ca bii ko ñeenteel te mujj ci dafa jàppaloog moom te mooy la mu fayu ca bor ba mat nisaabu su fekkoon ne lañu ko fay ca bor ba matul nisaabu du tax asaka war ko lu may nag am na am am bu yees ci xaalis boo xam ne mbaa wurus ma nga fa te ba mu ko amee léegi mat na at wala mu amee kan bu ñuy gasee wurus mbaa xaalis mu gas ca génn ca nag loo xam ne su ko booleeg la mu fayu mu mat nisaabu waaye su fekkee la mu fayu ca bor ba wurus la mbaa xaalis waaye matul nag nisaab te amul leneen lu mu koy booleel ci li nga tudd léegi kon asaka du ko war ci loolee mu fayu su fayoo nag ca bor ba loo xam ne matul nisaab bu dellu fayuwaat lu matul nisaab bu dañu wéy rek ba ba muy fayu nag loo xam ne su ko booleeg la jiitu woon mu mat nisaab bu saa yu demee rek ba àgg ca pay ga nga xam ne bu àndeek yañ ko njëkk a fay mu mat nisaab bu yoon wa nga xam ne ca lañ ko fayee lay mottali nisaab ja bu àndeek pay ya ko jiitu foofa la war a génnee asaka dañuy boole xeeti fay yooyu ñu ko fay ba àgg ci pay ga nga xam ne moo mottali nisaab ja mel ne suñ ko fayewoon ñaar fukki junni dellu ko fayaat ñaar fukki junni diggante ba mat na ñetti weer te bañ ko fayee pay gee ak gële ba tey loolu ci liñ seete woon nisaab bu ci xaalis CFA matagu ko su fayuwaatee nag fayub ñetteel ñu fay ko ci ñaar fukk kon léegi moom fayu na juróom-benn fukki junni te loolu mat na nisaab ba ëpp ko ci ñun ko seete woon ci fan yii bi mu fayoo ñaar fukki yu mujjee ba mu doon juróom-benn fukki junni foofu lay daal di génne asaka yi mboot